xam nga lan laa wax il y a deux ans dama ne jamono ju toll nii ki moo gën a kii. Euh, ubbite mhm. école moo gën a metti. bien sûr bien sûr ay benn sax. gis nga ba ma ko waxee ñu bari dañu doon kii xoolal rek tey nga am juróomi bant. Mhm. ñaar ñi nekk dans le moyen secondaire. Mhm. à l'époque c'était dix mille. encore que sax ñun dénoncé woon nañ fi à l'époque ci benn plateau am na établissement scolaire yu nekk fii te je les ai cités ba ne képp koo xam ne kii li ma wax du dëgg dama plainte mhm. dem nañu ba ay vingt cinq mille francs yu ay. te fekk dix mille lañ doon laaj. alors que ci texte bi le décret deux mille trois cent trente sept dafa ne entre trois mille et dix mille. mais loolu sàcc la état bi di seetaan. waaw mais waaye état bi nga xam def na. décret te ci poosu kan la jëm. waaw non état bi def décret signé ko mais application bi moom moo ciy veillé. bu fekkee nag toog na ba yeneen école di dal di def loo xam ne li jéggi na loolu déjà problème la ba 25000 temps yi passé c'était le 27 mars 2022 la ñu def conseil interministériel bi sur la cherté de la vie parce que seetlu nañ ne njëg dafa cher trop ci wàllu dëkkuwaay yeeg location yeeg yëpp hmm. ñu dëxañaale ci école yi ci la ñu dugalee frais d'inscription yi daa dans le public et dans le privé muy arrêté interministériel bu ñu génnee ah, ba ñu ko génnee nag fixé dépense yi dañ ne 3000 francs la ñu fixé ne moom mooy frais d'inscription bu fekkee ne dem nañu ba école bi muy moyen bi ak euh, lycée bi dem nañ ba xool ne matul mën nañu réunir dal di koy def 5000. maximum maximum. maximum 5000 ce qui veut dire que maa ngi koy wax ci télé ñëpp di ko dégg. wéy juru ndaw nga yëpp di ko dégg. junni bu ko kenn weesu. mais dinañ ko weesu. parce que parce que ñi ko war a suivre. ñi ko war a suivre teg ay garde-fou. ana ñu gis ñu leen démb rek. ci suñu plateforme yi dañu wax lu leer parent yëpp képp koo xam ne kii def na plus de 5000. nañu ko fotool. Mhm. envoyé ñu ko ñu wax kañ dañ ko war a wax. parce que ko def woo ko ci yoon il faut que so qu'on soit très clair. am na nag ñuy wut dafa am mafia ci biir on dirait am na ñuy wut ay voies détournées parce que ay xam nañu mbir mi. yenn saa yi gis si yokk ab ay ay tenue scolaire. waaw tenue kii comment dirais-je. blouse tenue d'éducation mhm, yenn saa yi nga yokk ci ne xaw ma naan ordinateur. Ah, salle de location kii yëpp. noonu la ñuy def 5000 francs bu ko kenn weesu. mais c'est trop inscription c'est trop bu ko kenn weesu. léegi nag li nit li ñu décidé moom koy léegi parents d'élèves yi waajuru ndongo yi ñoom ñooy jënd tenue yi am na ñu ko commencé. association parents d'élèves yi nekk ci moyen secondaire bi. Mhm. ñoom ñoo war a dajale. Mhm. ubbi seen compte mhm. man mii je suis au niveau de lycée moderne de Rufisque. commencé nañu confection yi dal di teg 7000 francs la boo xam ne bii ku nekk école bu nekk mën na def de telle sorte que dina mën a am blouse am ba pare di préciser que ne les frais d'inscription c'est jusqu'au 31 décembre c'est très important. parce que depuis bi Serigne Mbaye Thiam doonee ministre. la génne benn circulaire te kenn du ci dax élève voilà kenn du ci dax élève maanaam c'est-à-dire dañu ne frais d'inscription yi mën nga ñëw jàng si boo xëy école ubbee comme ni mu ubbee démb d'accord ba le trent décembre mën nga inscrire mën nga inscrire mais warul la tey nga ñëw jàng ok ku fi def pression nag dal di pression ci waajur ne ko danga war a fay ci tàng-tàng bi du yoon te ku ko déggit wala mu dal di fay imposer ko nañu ko yëg ñun dinañ ko wax fañ ko war a waxee te lan moo tax doon def plainte collective hmm? benn plainte collective boo xamante ni da ngeen di dem ni tel directeur d'école mais booy def hmm? plainte non une plainte collective c'est une plainte collective ni tel directeur d'école def na ko dafati ko dafati ko et que dëppoowul ak taxi Birama nous on a un avocat conseiller c'est très possible parce que nag boo demee ba toll yore association bu toll nii. dans le mm. biir national. Mm-hmm. voire même international. Mm-hmm. Mm-hmm. bon on a un avocat conseil. ok ce qui veut dire que buñ dañuy rassembler les pièces à conviction. Mm. d'accord moo xam ne kii gis nga lii ñu la fayal dafa ëpp nañu ko jox. bien sûr ñu jox ko suñu avocat conseil moom moo xam mm. ne muy def ak nit ki. xeex bi dafa war a bu ko jëree ngeen wàcc sax ngeen wàcc tàllal tànk yi. waaw def marche pourquoi pas defe naa ne loolu euh, c'est c'est très important. question blouse yi aussi ak tenue scolaire yi bu ñu fi dax benn élève boo xam ne bii solul tenue. blouse mooy lan blouse du gouvernement moo koy financé. non non non xam nga xam nga y avait projet. y avait projet boo xam ne bi bii c'était étalé sur trois trois ans dix milliards par année. muy trente milliards comme ni ko euh, SG waxee. ñun bañ ñu posé question dañu nañu nii. c'était pas opportun. c'est pas opportun parce que mënuma comprendre man. sama doom sama doom solu ba ne juggu dal dem ci mbaar di fa di fa toog. mu mhm. mel ni rek. Mhm. wallaay nga mhm. ñëw sa biir kër. solu ba mel ni panaal. dal di ñëw ci néeg néeg boo xam ne bii euh, sëngal la. amul sens. amul sens et puis blouse yooyu sax dafa doom dañ leen. blouse beige marron ah. ah. am am am ndox. bu mënee am ba marché defe naa ne 10 milliards bu ñu ko delloon tas ko ci école bi dina war a mën a permettre au moins les conditions. d'apprentissage d'enseignement hmm. apprentissage wala amélioré wu xale yi dal di sol sax li ñu am hmm. wala ñu ne parent yi comme ni ñu ko defee nii mais parents yi ils sont responsables et les parents am na ñoo xam ne mën nañu am ressources additionnelles yoo xam ne yi sax xam nga moom laay wax toujours souvent dañu dul gëstu da ngay gis un parent boo xam ne bii il est prêt à mettre dix millions ñu ngi fii ñoo xam ne ñii bu ñu leen sollicité dinañ jël def ci Mm-hmm. def fan. ci école yi yoo xam ne ils font dans les écoles. mille le font ainsi de suite fu nekk da gis anciens élèves ñooy def bi daal ñun li ñuy ñaan mooy nañu ko bàyyi ñun ñu organiser lépp loo xam dañ koy jël di ko jël ay seen 30 milliards yooyu nañ ko jël daal di ko dugal ci école yi surtout ñu nekk ci euh, zone périphérique nga xam ne ay mbaar lañu. ñu mën leen permettre vraiment ñu nekk dans. dans de bonnes conditions mm-hmm. ñun daal moom loolu moom mooy suñu wax ci ci wàll woowu.